salaamaaleykum mbokku internet salaamaaleykum mbokku àdduna wërngal këpp seen émission dooratina carré ci ñoo ko bokk TV di leen nuyu di leen ziar ngeen ànd seeg seen xarit seen doomu ndey Thierno Fall alias Pire Mbaxal di leen wax ni saa su nekk fii lay affaire di tàngeete fii lay affaire di neexee may profité di nuyu sama yaakaar tey ëllëg muy sëriñ Amdi Moustapha Fall ngeen neexal ko borom Touba ci kii di nga bu wér-wér samedi bi passé nag damaa dalal ay ndaanaan tey nag ma fas yéene indiwaat ay ndaanaan ñooñu mënuñu wax mënuñu wax ah, aar te tudduñu leen ñu nekk fi nga xamante ni mooy dëkk Kaolack Ndangaan kon nag yaakaar naa ne sëriñ bëgg lu baax laay dalal tey ak ki nga xamante ni mooy Seck Ndanane di leen wax bisimilah. baaxul Seck gin gin gin gin baaxul Seck gin gin gin ala gin gin taal mbax gin ree bun kàcc rumb kàcc rumb kàcc ah bun saw macha allah <laughs> kon gis ngeen émission bi li ñu la war a doon yoon yaa ko moom mooy yow méttee ko méttee ko Mété. maa ngi indi chute mété boo mété boo kilik émoom. ah nee nga ñëw. man dafa coono. waaw baxal. waaw nga baal ma balaa ngay tàmbali. mbax eh. caméraman bi ñaaw na. waay waay kii nay naan nii waay kii nii waay ndax na ci ñaawaay. mbax <laughs> su yaakaar naa ni seen émission bi ñu lay demee doolete na. même ma firéeku. macha allah ñëw balaa ngaa door sa émission. firéeku la firéeku. <laughs> ah fër. fër nee naa fër kon waxal. waaw ah, kon. da ngay bàyyi rek merci beaucoup Seck Ndanane kon yaakaar naa ni émission bi door na. invité ñu waane. ma ñu bëri ci def. ma xam naa loolu. xam naa ne évité naa. waaw loolu la nga fekk lu tax nga fekk balaa ngay nuyoo waaye nag. macha allah Cheikh. Cheikh si garabu bu baax naa. mais ma sañ Cheikh teel na la wax ci kay baax bi nga génn nooy na. voilà macha allah kon émission bi doorati na. continué sa émission seen émission ak li nga xamante ni mooy Kaare ci Ñoo Ko Bokk TV. kon yaakaar naa ne ay ndaanaan gis ngeen nañ dugg cee kon yaakaar naa tey yow mii di seetaan émission bi tey da nga naan réew ba sama ñaar. xoolal maraakis bi ba mu laa génn fii sa waay. waaw moo moo kase ak ak ak John bi. waaw day wax yooyu yëpp day ko wax. kon yaakaar naa ne. montre bi montre bi. montre moo jëm ci ko wan ko internet bi. Ah, <laughs> montre bi macha allah macha allah kon baax. waaw kon di wax ne ki nga xamante ni mooy Seck Ndanane mu ngi nuyu ñi nga xamante ni ñoo lay suivre si Ñoo ko bokk TV seen émission Kaare Seck bisimilah. Hmm? nga nuyu bokk internet yi lay seetaan. non yaa ngi jàkkaarloo ak ñoom ànd ma fi kenn ku may nuyu nag wax dëgg yàlla. <laughs> merci beaucoup sëriñ bëgg boo baax. <laughs> nuyul bokk internet yi lay seetaan. man doo ma sosoon Seck ëpp ma fu la fii gisuma fi ku may nuyu. Ah, wax dëgg yàlla anañu. boo nee salaamaaleykum kenn du ne maaleykum salaam. waaw léegi nuyu. nuyu nuyu <laughs> léegi nuyoo. macha allah kon yaakaar naa ne mun naa ne tey jii 100 pour 100 ruba lañ indi euh, ki nga xamante ni mooy seen xarit seen doomu ndey biir mbaxal la na fekk nee naa li ñu baax dama koy ñeer kon yaakaar naa ne Seck. Hmm? émission baa ngoog waaw ah, émission <laughs> <laughs> nga ne boo yu xool le petit frère dama koy firi. différent eh ku ne xam na ne man baax di sëriñ bu mag bi sëriñ bu toj kumpentum ko sa naa ngaay mi sira jëm xel sira jëm xel par caawa raa ñor tey ba doo faa kër ba kàkk ma jabeel man maa bind la petit frère petit frère ma koy firi dinaa leen wax mën a kan dinaa leen mën a baax man la borom 174 millions taalibe yi man baax maa bind Afrique moom Afrique man baax maa bind Cité Lama man baax maa bind Le Petit Frère waaye man baax eh maa bind observation notre corps. waaye Sénégal sëriñ bëggul baax nee na Le Petit Frère. eh xoolal man baax maa ngi cas xalima gi ne cas daa gi doo ma laaj bu ma koy bind fu ma nee. fan la fan la bu ma koy bind maa ngi taxaw ci digg géej gi 75 kilomètres à gauche lépp ndox la 780 kilomètres à droite lépp ndox la. sama nit lépp ndox la sama ginnaaw ndox la ndox war ma ma ne cas xale nag yi ne cas daa gi kenn gisuma kenn gisuma ñu ne ma baax bindal ma ne le petit frère le beau petit frère ey ma ne le petit frère sama rakk bu góor bi le beau petit frère ey sama rakk bu góor bi le beau petit frère sama rakk bu góor bu rafet bi le beau petit frère qui nous est venu ey ma ne sama rakk bu góor kii nous est venu bi nga xam ni moonu gane si door ey ma ne door mi ngi nelaw forul bët day nelaw door door door ey ma ne door sama yaay bi nelaw door. bi ko sama yaay sàngee ba mu set jox ko soow xale bi nelaw mu tiim ko naan door. door dans sa corbeille. eh ñu ne ma baax bi nga nee door. bi nga nee le petit frère. le beau petit frère. ki nu sévenu door baax lan nga ci def fu mu nelawee ndax dans la chambre ma ne ko a ah, non non non ndax dans la salon ma ne ko a ah, non non non baax ndax dans la couloir ma ne ko ah non non non mënu ma uu ma ne ko dans sa corbeille. door. tout rose maanaam boo déggee ma ne tout rose mooy maanaam xolal eh, eh, sama yaay mi ngi ko solal daal yu rose solal koy tubay ju rose sulub bu rose événement bu rose mbaxana mu rose capp-cappal ko rose moo tax ma ne ko tout rose tout rose eh, tuuni. naka te yoo dabalee ndax tuuni la def maanaam xale bi taat neen la def su lab neen. <laughs> macha allah maanaam àllub neen. <laughs> àllub neen. sëñ bi yaa bëri xam-xam. eh damaa bëri xam-xam. parce que dëkk la pra. Eh, puisque nag puisque nag mhm. puisque chacun le prend mhm. ndax ku ñëw foog ko ne ko bébé yaa rafet ku ñëw foog ko ne ko bébé biisu biisu ku ñëw foog ko ne ko bébé nangam nangam moo tax ma ne puisque chacun le prend puisque chacun le prend pourquoi ne votons pas eh ma ne nag kon nag ma laajaat sama bopp mhm. posé waat sama question sama bopp xool gauche gisuma kenn ma xool droite gisuma kenn xool sama kanam gisuma kenn ma posé sama bopp question ne pourquoi ne votons pas lan moo tax mënuma ko dans mes bras. eh que je le tiens ñu ne ma fan dans ses pieds ma ne non non sur ta tête ma ne non non dans tes yeux ma ne non non ma ne non non ñu ma où ma ne ko que je le tiens dans lu tax mënu ma ko foog comme ça morom yi. macha eh j'ai touché sa tête nag ndeysaan ma raay bopp ba très très doucement ma raay bopp ba très très doucement may raay bopp ba di mel ne kuy raay lu bon di mel ne lalu trois heures du matin yaag sa jabar may raay di raay puisque c'est que le para pourquoi ne peut-on pas que cela tient dans mes bras a touché sa tête nan très très doucement baax na raay mbiyel la a raay mbiyel la baax na raay mbiyel la raay mbiyel la sama mi wax naa la ba taay nga bokk sekk ba ngay tëy mbax ay sekk baa ni téyex lan laa ko yóbboo mal tayax gi nii. macha allah maa bëgg a njaboot macha allah kon yaakaar naa yéen a ko gisandoo seen émission. dafa na posal posal bu am ndox. <laughs> non c'est c'est normal ngeen jël ndox. Ah. <laughs> c'est normal ndox ñëw kon yaakaar naa ne ki nga xamante ni <laughs> sama serveur joxal na ko ndox. ah waaw day naan di. sa caméraman bi macha allah seen émission baa ngi noonu. yaakaar naa ni nii lay demee saa su nekk te gisagoo leen dara ki nga xamante ni mooy Serigne bëgg lu baax ak Seck naanoo. naanoo ndox ngay wax. non non non non Seck jeex naanoo nag. yaa ngi ndox mi yëpp di yëfi doomi xaj yi ba ko di ma ko def nga wax sax bay daa ak ñaawaay bi wax na waa yaakaar naa sama réalisateur bu allah kon ne woon naa leen saa su ne seen émission samedi lay dooree ànd seeg ay artistes ay talent ñoo xamante ni macha allah dañoo mën lu ñuy def xam lu ñuy def ba tax na ki nga xamante ni mooy sëriñ bëgg lu baax ne nekk sama càmmoñ ak sekk ndaanaan nekk sama ndeyjoor kon yaakaar naa ne gis ngeen li fi wane te dañoo nuyoo rek mën naa ni seen yaram tàngoogut mais balaa ñuy xuus ci lenn wala bala ñu gën a jàll ci communauté bi jàll ci li nga xamante ni mooy fen yëpp duul yi leen di posé question ñu bëgg ñu waxtaanee ko waxal ñu suñu ko hmm? ñun dolli waaw allah kon ñu bàyyi leen euh, ci li nga xamante ni mooy thème bi amoon bi passé samedi passé ci ki nga xamante ni mooy Tarkinda ak Jopal euh, kon yaakaar naa ne tey lañ koy continuer ci li nga xamante ni mooy aaru Kaolack lan moo ko teree dem kon yaakaar naa ne Seck ak euh, euh, Serigne Bëgg lu baax war nañ see mën a xuus gën see yaatal ay message yoo xamante dañ ko mën a lancé ñi nga xamante ni alma si benn balaa maa ñëw ci thème bi nga def ko mu ngo ci li nga xamante ni mooy thème aaru Kaolack lan moo ko teree dem aar lu tax doxut ci Kaolack nangaan waaw xam nga dama si may benn Thierno Sow mhm. sama doomu ndey dama koy nuyu moom laay njëkk nuyu ka ne yow lu mhm. nuyu mbokk internet yi nga xam ne ñun ñooy ko bokk tii mhm. mhm. bu ngeen ñu ci woowee ñun dañ ci a ñëw macha allah ndax euh, ne nañ charité bi ngeen wax dana commence par soi-même lii bu jëmee kanam ñun bu ngeen ñu woowee lépp luñu jàppante dañ koy bàyyi ngir ñëw nga xam ko bokk macha allah aar nag donc nga généraliser. lépp parce que art ah, lépp ngi ci. musique bi mi ngi ci. théâtre mi ngi ci peintre mi ngi ci leneen ak leneen mi ngi ci. Mhm. mais ñun ci li ñu concerné moom mooy théâtre bi nga xam ne moom la ñuy def. Mhm. mën nañ ne par rapport ak les autres régions yi nga xam ne ñoom nekk ñoo nekk fii Sénégal. Mhm. Kaolack dafa nekk un peu en arrière. parce que du ma ne talent la. parce que bu ñuy wax talent rek yaakaar naa ne ay racines am ñu ngi fii à Kaolack. am na solo bu dee gëm-gëm ak bëgg-bëgg fii la Kaolack. ndax da ngay gis des jeune yoo xam ne matin soir dañuy try mhm. pour pour joxe balaa ngaa xam loolu nga dem ci benn spectacle am nga xool des jeunes nga xam ne jeune Kaolack la mhm. bu ñu la defalee produit benn spectacle rek nga signé par ak les autres artistes mhm. bu ñu demee ci festival dañu fa tesante ak artistes yi nga xam ne ñoom la ñuy gis au devant de la scène mais dañu di faj sur scène man baax mii nii mënuma xam talent wam parce que man ak moom guddeeg bëccëg ñoo nekk mais bu ñu ko jëlee dend la ko ak keneen ki nga xam ne ñu ngi koy gis. Mhm. yaakaar ne kooku moo aay. Mhm. bu boobaa ñu xam valeur bu baax. lu wér mais duñ def loolu. Mhm. ñoom xam nga Sénégal xamuñu talent. xam kuñ xam. kuy feeñ ci écran yi. ku siiw te c'est différent ak aay. ki ñu ko ci écran yi ñu di ko wane noonu c'est différent ak ku aay. bugguma tudd tour mais am na ñu dem kër de ville am benn artiste pour siiw bu ñu fiy invité à Kaolack. mu yéeg def na lu ne. public bi fi ñu toog yëngatuwul. mana ne sa waay dafa yéegal nga defee benn cinq minutes. mais mënuñoo baaxee artiste boobu. non non parce que dafa am lu muy niru ma ne sa waay boo yéegee def benn cinq minutes ñëpp tëdd. Mhm. présence am sur seen nii rek sans mu wax rek ñëpp ree nañ ba tëdd. loolu don la te loolu mi ngi la gii nii. macha allah kon li ngay jëlee xaalis di ko fay artiste bi nga xam ne mi ngi à l'extérieur te bàyyi fii nii Kaolack. Mhm. ñàkk gëm sa bopp la li ngay jëlee xaalis fay benn producteur bu nekk à l'extérieur. Mhm. bàyyi ki nekk Kaolack Kaolack. ñàkk gëm sa bopp kon ñun doomu Kaolack. nañu jàppalante nga xam ne dërëm bu du génn gaaw damay jël exemple ci région de Thiès chaque année nga gis fa ku bees. Mhm. ku fël. Mhm. di def fa. Mhm. parce que dañuy jàppalante ci seen biir ñoom ñoo bokk ndey bokk bàyyi ba pare nag seen waa dëkk gëm leen. bu ñu amee dara duñ ko jéggaani ñoom la ñuy woo. bu fekkee dërëm la wala ñaar dërëm ñu jox leen bu wax dara nekku ñu dara nekku mais leen ngeen def loolu rek sag la ñun loolu la ñuy waa Kaolack ñaanuñu kenn dërëm macha allah kon yaakaar naa dégg ngeen témoignage yi nga xamante message bi Seck Ndanane joxe kon daal euh, su ma déggee waxam bu baax a baax mooy euh, li ñu gëm seen bopp fi ne ñoom artistes yi mais ku leen jàppale lañ amut li ngay jéggaani di ko uti ji feneen tam nekk sa dëkk jàppale ñu nekk sa dëkk te yàlla rek tax nii mën nañ li ñuy def te xam na li ñuy def te wóolu nañ li ñuy def te itam bëgg nañ ku leen si jàppale ngir yàlla war sóoli ñoo leen ngeen jàppale artistes yi nga xamante noo nekk Kaolack Ndangaan yéen ñi nga xamante ni yéen autorités yi ñi jéggaani jëli ji ñeneen am na fii ci Kaolack ndangaan jàpp leen artiste baax ana la ban message ngay joxe foofu noonu si euh, lu waral aaru Kaolack demut waaw biiru maxal maa ngi lay nuyu di mhm. nuyu képp koo xam ne yaa ñuy euh, seetaan di mhm. nuyu Kaolack nangaan di nuyu ñëpp di leen ziar mhm. dama ne woon sax bu sekk waxee du wax ndax ñun d'habitude noonu la yàlla def ñuy dundee nu demee ci bërëb war a wax su ma waxee sekk dootul wax wala bu sekk waxee dootul ma wax mais lii dafay loo xamante ni bii kenn ku ci nekk rek mën nga cee sànni sa grain de sel Euh, dafa am benn affaire bu xaw a incroyable te moo am. Mhm. man mii génn Kaolack di dem di jëflante ak yeneen artistes yi hors Kaolack xam naa li may wax. Mhm. gis nga gis nga yeneen artistes yi. Mhm. ñi nekkul dëkkul Kaolack. dañu ñee artistes Kaolack. boo nee Kaolack laa jógee dañ lay ñee ñoom artistes yi. lu waral loolu lu waral ñee ñee boobu. parce que tey lii aar. dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg fii lañ koy gis Kaolack. Thier dugal alliance. seen alliance boobu ban artiste ngay dégg Kaolack te jaaru ci seen. amul. ban artiste ngay dégg ci Sénégal mu siiw te siiweewut foofu c'est rare. Mhm. parce que ñun tey aar bi tey bu fekkoon bu fekkoon oto la. Mhm. man tey direction bi Kaolack la ne. Mhm. mais nag Kaolack ñi fi ne ñu dawal. parce que ñi yor permis yi joxuñu leen ko muy ñeen autorité Kaolack gi. ñun de ñun man personnellement en tant que président compagnie. benn autorité fii Kaolack amul ci ku ma demul nag. fii Kaolack c'est rare nga tudd. millionnaire bu ma toogalut mhm. ne la ñun kat ay artistes lañ nangam ak nangam ak nangam ak nanga ak nangam mais benn nit moo ci mës a woo ba ñu ñëw. Mhm. boo xam ne sax ñun lañ bañ bañ koy wax wala bañ koy sollicité sax lañ ko sollicité woon passé mhm. moo ñu mës a woo ba ñu ñëw mu yëkkati enveloppe bu doon macha allah ci télé laay wax. teg ko suñu loxo ne ñu maay seen parrain par la force mu leen neex mu leen naqari mu Ousmane Noël Dieng. macha allah macha allah. ne yéen artiste gi man ne ko xam ah, mu ne maay seen parrain.

Mhm. dañuy dem bu mujj gi dañuy soxor des fois moo ko man des fois dinaa ko wax kaw maa jéppi mais dama koy def mhm. mhm. naan lu xale màgg def ko rek ba muy xale lañ ko ko defoon da ko fàtte lu wér kaw jàppale wuñu autorités yi mën nañ ko tey benn Ibrahima Djigo lii kii euh, Seck wax léegi benn kii bi laaj ma si dégg mu ne bi Thiès di def ñun lu tax ñun kaw la bu ñu def loolu mu ne année bii dañuy jël diw njëkkati suñu spectacle yëpp moom la moom la ñuy mhm. favoriser. Mhm. bu demee ne ñu jël keneen. Mhm. da ko tenté ay yoonu yoonu yoonu yoon mais ñi ko ci war a jàppale bu ñu ko si jàppale. doo xamee ku bokk keppaar. parce que ñëppay ñëw. kon artistes booloo nañ. mais nag ñi leen war a tingamu tingamuñu leen. donc nañu jàppale encore une fois ci fii la ñu koy jaar fii la ñu am. lii la ñu am émission bii la ñu am fii la ñu am fii la artiste yëgee seen bopp kon fii la ñuy toog jooy ko muy jooyu xol macha allah kon yaakaar naa ni dégg ki nga xamante ni mooy euh, message u sëriñ bëgg lu baax ku dégg ni muy waxee rek xam ne li muy wax ñor na ko te itam dugg na si biir xol parce que ne olof njaay na lu jógee si xol rek si xol lay dem kon yaakaar naa ñun ñi nga xamante ni nekk diwaanu Kaolack ndangaan autorité yi jàppale artistes yi wax naa ko sànq si discours Seck ndaanaan kon yaakaar naa sëriñ bëgg lu baax est-ce que yéen yéen a ngi créé ay spectacle yoo xamante ni day am ay entrée pour di soli euh, dem di jox ay parrain ay autorité pour gars yi reconnaître bu baax a baax am ni yéen yéen bëgg mi ñu leen jàppale te yéen a ngi bàyyi seen waar si aar bi ndax yéen a ngi créé yooyu euh, des fois nga dugg si benn quartier dafa benn spectacle des fois nga créé fee affaire yooyu noonu daal yéen a ngi si dox wala cher euh, damay nuyu bu baax a baax mhm. sama sama waa ji sama xarit mhm. sama nit muy paati si mhm. père Balla ko nuyu wala père Balla mi ci buum gi mi ci kër Dajaga macha allah yi ngay wax ni spectacle kii de daf koy reyante yàlla xam ne ni démb daanaka ci loolu la ñu yéen loxo damaa mujj ne paate sonn naa mhm. mu ne spectacle yi ku gëm aarañ noonu spectacle yi Thierno Sow spectacle suñu nàngam bi suñu nangam bi ci yooyu rek la bëgg mhm. parce que buggul lu dul loolu mhm. ñun aussi bugguñ lu dul loolu mais tey Kaolack li sekk wax léegi rek consommé la local tey billaay wallaay soo tàntoon ñu ne sëriñ bëgg lu baax fay joué ak Seck ndaanaan Kaolack li ñu koy xam-xam koy bëgg-bëgg-bëgg ñu tàntaat fële ñu ne Mor Mor Ndiaye fay joué. Mhm. donte ni mosuñoo dégg Mor Ndiaye. Mhm. mais bu ñu nee Mor Ndiaye ndar gu ndaw ndar la jógee. Mhm. wala Louga la jógee. wala feneen la jógee. wallaay bu Kaolack bu dee cent la ñu am et bu ñu xamoon ni ñu am dañu xam ni ñoo bu ñu ñenn. am ko ta xam am ko ta xamoo ko nag sama góor gi da wax Serigne Babacar Si mu ne am ko ta xamoo ko ñàkk ko ta xam ko moo gëm. kii di wax mais dañoo am ñàkk fayda la def Kaolack dañoo xamul ñun dañoo nekk ci émission Kaolack dañoo xamul ñi ñu am maag baax dañoo nekk ci émission kii soof na nekkoon nañu ma dañuy waxtaan dañu waxtaan dañu ci émission <laughs> yaa ngi dégg ci ñu ngi ñoo ko bokk TV yi bokk mu seetaan lu jàpp lu direct jàpp lu la da man <laughs> yaa mhm. xamuñu mhm. ñi ñu am mhm. gis nga mooy li ma wax le am ko tax xamoo ko ñàkk ko ko gën ndax boo ko amee ta xamoo ko ko sàgganee ba ñàkk ko tey ëllëg man gis naa fi ba artistes yu bari Kaolack fii yoo xamante ne bii. Mhm. bu ñu xawee avancé tuuti tuuti tuuti Kaolack ñàkk leen. autorité Kaolack bu leen woon ngeen damaa soxla ngeen defal ma nangam danañ la laaj lu cher te boobaa bu ñu nee daa soxor nañ jàpp ne soxoru ñoom lañ xolaat seen bopp garab nag li may wax toujours Kaolack rek fu ma taxaw ci seen danaa ko dinaa nee naa leen garab bu ñu dee mhm. ku yéeg daanu ku yéeg daanu ku yéeg daanu bu ñu xool bu ñu jéem toog di xaar ku daanu ñu faj la ñu xool lu ne ci kaw kaw bi ba ku yëg mu ba wax la dégg naa wala Kaolack nag lu ma leen di junj la macha allah baax macha allah kon yaakaar naa dégg ngeen kàddu message bi leen euh, sëriñ bëgg lu baax lancé kon bàyyi leen si xel tey jàppale artiste yi Kaolack ndangaan yi mais Seck sa digganteeg baax fan la jógee ba ngeen diyoo sànq euh, def ngeen seen bu neex fu mu jógee fu mu jógee yéen ñaar laaj nga ko lëf de <laughs> lu rëy sax. Ah. lu rëy ndax euh, sama diggante bu baax. Mhm. mën naa à travers Arcos la. Mhm. di nuyuwaale président Arcos Ibrahima Djigo Kibili. président président Sankum. Mhm. ak président Sankum mooy. dama ko gis mu def benn prestation benn benn spectacle bu fa amoon. mu ñëw ci beneen turu troupe. moom mu ci beneen turu troupe. ma gis ko mu joué. ci sama xol maa ngi naan kii de li ma gis ci moom dafa mel ni kii laa seet. Mhm. waxaguma ko ko. waxagoo ko booba. maanaam man kii laa doon seet ci aar kaw la. Mhm. parce que ñëw naa kaw wax na pendant des années yoo xamante li nekk ci man dama koo denc. Mhm. que dafa am ku ma doon seet te gisuma ko. dafa ci man te ànd nag ay nit te mënuñ koo yee. dama gisee a man kii laa doon seet. macha allah moom tamit mu mu ne man su ma lekk dara ci théâtre te bu ko ma guñ. yàlla dogal am na benn production bu mu bu am yàlla bool ñu ci bu dóoree man ak moom rek Kaolack gépp ànd naan bu baax ak Seck Ndaama. Mm-hmm. toog nañ benn instant boo xamante ni déggante rek la ñuy def mu nekk ci leneen ma nekk ci leneen. Mm-hmm. dañuy déggante souvent sa waay ñëwal boobu période boobu maa ngi Louga. Mm-hmm. ñëwal dañoo war a liggéey moom mu may forcé dañoo war a liggéey projet yaa ngi fi te man ak yow dañoo war a liggéey mu may forcé. macha allah bu ma quitté Louga ñëw fii nii. loolu moom moo yaakaar naa tax sama diggante ak moom gën a ànd moom dox na ci ay temps yu am am solo. macha yaakaar naa ne instant bi nii Kaolack kenn dootu fi présenté baax ak Seck. Mhm. waaw parce benn émission bi ma leen doon déglu jamono yee paas yaakaar naa si Jafala FM. di nuyu profité di nuyu ki nga xamante ni mooy sama xarit sama doomu ndey kooku du kenn ku dul Malick alias Maestro di la wax ni maa ngi lay béggee lu bari. sama sama moitié sama xarit ak noonu série